فكل قلب ذي سليم تعبدا من الله ضيف مكرم شائد بدا هو الدائر الآتي لنا كل رحمة وخير وسعد والمنى وكذا الهدى رياضة هذا الضيف نفسا عجيبة ومن أمر ربي يشهد الناس في الأداء رضا الله في تعظيمي كل ساعة وإكرامي إن المضيف له جدا مرادي بشر المعظم قدوه يصوب بمن بالبقاء تفردا أجون لي طرفي عند إلهنا فباليد لا توكيله الأجر سلمدا أتى أثر في الأمر من خير رسل محمد المحمود ذي الصدق والندى نجا كل مرء صائم وهو قائم وحنا أكرم الخلق جملة عن ما آل وصحب عن ما آل وصحب سلام عن ما آل وصحب وجدت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرني فلا يخفى عليك علي لم تخف فيك قلوب صاحب الغزل ببابك الأعظم المفتوح يدخله كل أتاك فإن لم يدخل يمين تواصل ربنا مولاي صل على خير البرايا من التفاصيل والجمال سيدنا أحمد المحمود شافعنا والفاتح المغلق المسدود عن ملل الخاتم الفائق أسمى لما سبق الهوى الفضائل عن مثل وعن مثل الناصر الحق بالحق المؤيد بالنصر القوي بالدين فقبل الدين وإنه مرشد هادي صفي إلى صراطك المستقيم المهادي الخلل ثم على خليه يا ربنا حق قدره ومقداره العظيم يا وقدره ومقداره العظيم يا seen soldat yi di bëgg a jeex almaañ di leen bëgg a rey lañu ñaan sëñ babacar si radiallahu taala anhu ni ko ñaan ci ci première guerre mondiale bi ñu bëgg nga ñaan ci deuxième guerre bi almaa yaa ngi ñuy bëgg a rey mu def mu joxe ndigal ñu jàng li ñuy jàng ci zawiya Maodo mu jël ay xeer sóob ko ci géeju Dakar gi jàng ci tawasul bii ma leen di wax xeer yi traversé nañu océan Atlantique bi ba fekk Hitler fa mu nekk mu faagaagal leen loolu moo tax kenn du leen ni ba ba bàmmeelu Hitler a ngi te ñaan googu soo ko jàngee ku la song ci àddina ak nu mu mën mel ci àddina ak doole jum la songe yàlla dina la ci musal musiba muy jóge kaw asamaan yàlla dina la ci musal musiba muy am muy ñëw ak suba yàlla dina la ci musal musiba muy ñëw guddi yàlla dina la ci musa musiba muy jóge ci ab noon yàlla dina la ci musal boo dëkkoon ak nit sax muy sa dëkkandoo bu la sonnalee benn coono bi yàlla dina la ci musal te ñaan yooyu mu ngi ci biir ak benn tawassul boo xam ni yàlla la topp di ko bàkk di ko tagg ba mujje ko ci ni ko dem naa ba lab ci géeju bàkkaar te ragal naa ni nii ci diig waaye yow rek laa yaakaar te falaa taqnatu qawlul karimi karimu fa inni gariqun yaa giyaasi wa munjidi bi baxrin camiqin li zunubi acuumu fa inni actaraftu damba rabbiya bacdama dalamtuka wannafsa daluuma aluumu waaye wa cindaka gufraanun ilaahi wa raxmatun falaa taqnatu qawlul karimi karimu لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا seetal bàkkaar boo xam ni benn waay moo ñëw ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jooy rek di jooy rek Seydina Omar fekk ko fa radiyallahu anhu ni ko sa waay looy jooy muy jooy rek waa sa waay looy jooy muy jooy rek Seydina Omar ànd ak moom di jooy dugg ci neeg yonent bi salaa sallam ni ko ben way nga ci buntu bi di joy rek man sax dama muju and ak mom di joy mu ne ko na ñew mu ñew wa sa waay looy ya Rasulullah. bakkar rek ah sa bakkar bi mo upp asaman wa wa moko upp mo upp suuf wa wa moko upp mo upp arsh wa wa moko upp mo upp kursi wa wa moko upp waa bàkkaar bu ëpp yi yëpp waa waa sa bàkkaar bi moo ëpp yërmande yàlla ah déedéet yaa rasulallah yërmande yàlla moom dara ëpp ko mu ni ko demal yàlla baal na la ko saxaaba yi ni ko wax nu sa bàkkaar bi mu ni comme yàlla jéggal na ma ko ba leen ma rek ma dem yonent bi ko sa waay wax leen ko kay ndax ñu man ko moytu ah ya rasulullah ya ni yalla jéggal na mako nañ ma bayyi rek ma dem ak sama bakkar dedet da nga leen koy wax ndax ñu man ko moytu ah ya rasulullah mba du jur dara yalla jéggal na la ko ba paré kay wax ko rek ah ya rasulullah man di ñepp dañoo am métier man na sax ba aw mo métier dara du won sama métier lu dul di wër neew buñu sul ma soliko jël la dem jaay ko mu ni ko ba mu ba ñu suul benn xale bu jigéen boo xam ni rafetaayu xale bu jigéen boobu kenn xamul nu mu toll ma bàyyi leen bañ dem ma sulli ko bi ma ko sullee dindi càngaay li xool ko ni ko yàlla binde ma sëy ko bi ma ko sëyee ba pare bàyyi ko noonu munu ma ay diw ñu sang ma sang ma sool ma nga sotti ma sobe si ba pare bàyyi ma nii sangaat ma bokk suul ma bokk suturaal ma mu ni ko yaa rasulallah ndaw soosu baat boobu dama koy dégg jamono bu ne yonent bi ni bërit ni ko yàgg na tey ni sa bakkaar bi yàlla jéggalu la ah yéena ma ko yóbbe de waxoon naa ko di dem ndeysaan jibril ni cëpp ni laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia yàlla nee na buleen leen ñàkk yaakaar mukk ci yërmande yàlla yàlla bàkkaar yépp lay jéggale mu ni ko ee eh, sawaay kaay mu ñëw mu ni ko la ma la jëkkoon wax ni la yàlla jéggal na la ko yàlla jéggal na la ko loolee la indi jàng ko dugal ko ci boobu وإنك وعندك غفران إلهي ورحمة فلا تقنط قول الكريم كريم كم ليلة القدر لا تي دفا أم نافلة نغا نافلة جانغ القرآن نيان نيان غو خمني مكني نيو نيانيت تي أوكازيون بيت يا كانا نيني لولو باخنا موتاخون نيان xale yi ñu barkeelu ci yenn ti tawassul ah waaw waaw waaw suñu mbokk tur bi naka la sëriñ Serigne Cheikh Mbacke dafa ñëw wettili sinu ci laylatul qadri bi لولي تم ما شاء الله ورفت لول فتبارك الله نيغا خامي ني ني نون لاكو سيغ غلاس ديفوون تي اوفرتور با كون ني ديكو اهلن وسهلن ومرحبا خانا موم صاح مو بال ما توك جيما توك تي كو خانا امام رك سو ديفي كوم غوديغي لي فك فجر جي خرول لولا تي اشابي رك ديوين رك kon ko am ngànt ah dañuy xam ni am nga ngànt ñu jéggal la ko waaye ki amul ngànt déglu ñu jàng tawassul yooyu suñu paree waa xaw ma nu mu tuddati télévision xaw ma ah, Kajoor Actu dañ doon ñaan pour ñu waxtaanal leen ci ngëneelu laylatul qadr xanaa ma brosé ko rekk ñu jàng tawassul yi su ma koy jàngale mooy yàlla dafa nekk ci benn unité bu ñu tudde xadratul haahut mooy ca kaw muy xul huwa waaye foofa mënoo ko faa woo sax ndax doo xam tur wa motax mag ñi suñuy ñaan te bëgg jariñu ci tour wi dañ nan ko allahumma inni as'aluka ablay mi am nako allahumma inni as'aluka yow yalla ma ngi lay ñaan bi haqqi ismika ci barki sa tour wi nga xamni akhfaytahu neub nga ko yonent bo yoni xamuko illa anta yow rek ya ko xam lol motax nga gis mawdo bi moy nosé asma'ul lail husna bi mu waxee tur yépp ba mu yegg mun la bi sirri haasi l asaami secret tur yooyu salliyan ala sayidina alhamidi mahmudi yallah waa ki nga xamul turam xanaa boo ko mënta woo mënoo faa dem mu wàcc ci deuxième unité bi am tur nga woo ko ci allah muy allahu ahad mu wàcc ci troisième unité bi di allahu samad ñett yooyu tànk mosu faa dëgg te diggante benn unité bu ne ak moroom ma ay milliards yi année la toog soog a wàcc xanaa kon sori na mu ñëw ci quatrième unité bi muy mëlëkuut bu jëkk bi di xul di nature essentielle suñu borom bu ñaareel bi di allahu ahad di essence divine bi bu ñetteel bi di allahu samad di le monde des di jabarut bu ñeenteel bi di malakut muy lam yelit walam yulat muy le monde des mu bind la muy bind mais ci malakut rek am na ci benn bureau boo xam ni kenn mësu faa am accès kudul sayyidina muhammad sallallahu Alaihi wasallam laylatul isra jibril la ngi doon yam ci sen terminus parce que sen terminus moy sidratul muntaha kon li nga ci deg moy yalla fam ne sori na malakut bobu mu taf ci jurom ñaari asaman te jurom ñaari asaman yooyu ñun asaman bi nu muy bi bu jëk bi jant bi yeggu ca te suñ digganteeg jant bi mat na cent cinquante millions de kilomètres xanaa kon asamaan bi sori na waa léegi nag ñun ñu am dossier bëgg koo jox suñu boroom te dossier bi war naa egg ca suñu boroom te ñett yu jëkk yi domaine réservé am la kenn mënu caa egg ñeenteel bi nga xam ni mooy mëlakuut am na ci bureau boo xam ni Seydina Muhammad képp moo ca mas a egg te ñun fii la nekk ci ci suuf kon suñu dossier su bëggee jóge fii bëgg a dem ba malakuut te asamaan bu bii nu gën a jege rek sori na bu boobaa du yàgg yàlla ni xeetu na muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgguma seen dossier di tardé wut naa benn guddi boo xam ne administration bi yëpp laay wàcce illa sama id dunia ma ñëw ci bureau boobu am naa fi bureau su ma ñëwee léegi mobiliser yi leen yéen malaaka yépp ngeen wàcc ànd ak seen patron muy jibril moo tax tanazzalul malaayika ñëpp day wax ni tey camp bi kenn du fi des ñëpp ay wàcc te da ngeen di sol nag tenue de cérémonie waaye tenue de cérémonie yi nag bu leen sol tenue de combat parce que tay du tën lajul combat tay dama soxla dossier buñu indi rek ngeen def ci ngeen def ci jam te bëgguma affaire bi yeex motax tax malaaka di wacc ci suuf suñu wàccee jël dossier bi nga nga naafi ñu gaaw yobbu ñu defal la caché classé nga jang alquran ñu gaaw yobbu parce que digënté bi day gaaw parce que yalla ni len promotion la bo xamni ni lu ci way def rek koy multiplier lu upp alf shahrin lol motax sax ngeen balma ngeen inna anzalnahu fi laylatil qadr ngeen balma suma si ko traduire ni la révélation c'est l'art de savoir raconter le déroulement d'une aventure. Aventure qui a pour commencement le ventre maternel et pour terme les flancs inconsolables de la tombe. La révélation, c'est plus que la récitation, c'est plus que tout autre geste de piété. C'est une manière providentielle de communiquer avec cette substance de qualité si longuement recherchée dans la matière grise de l'homme. Et les événements et les bouleversements qui les accompagnent. Non, le peut traduire. waaye min kulli amrin dossier bo indi rek yalla ni tay salamun kaase rek salamun te salamun la muhammad don jang jam ci aduna jam ci alakhirah ñu ni kagn la yam ñu ni hatta matlail fajri loolu moo tax suñu demee ba fajar ji di bëgg ñew ñëw malaaka yàlla da leen di wax ni leen gaaw leen ba lañuy tejj dossier yi motax dañuy mujj di wër di ñew ci buntu sax koy nelaw ñu lay ñu lay yé ay way jugal way ay waay jógal waay ñun parce que liggéey boobu ñuy liggéey ku ci ëpp la loo jox sa borom ci dossier yàlla day kontaan ci yow moo tax ñu ni lu bis boobu bu ko bu ko bu ko sàggane wa maratun minhu ibadatu sana wa laylatul qadri fa janibi sina benn jaamu rekk nga def ñu bindal la ci yoolu at te xoolal liñ lay bindal yoolu at boobu suñ ko bindee ba pare kat dañ koy multiplier par mille nuits te benn boo def ñu def ko sept cent loolu moo tax guddi gi ci la yàlla di dogoo def li muy def yépp moo tax ñaan yooyu mag ñi di ñaan soo ko ñaanee ci guddi gi dañ la koy placer ci benn compte boo xam ni day continuer rek parce que bis bobu la yàlla di décider décision bo xamni lu ci wat gannaaw lolou motax ñu tudde ko laylatul qadr laylatul qadr nak lu ko jox daraja bobu moy li nu wàcce ci mom motax anzalnahu fi laylatil qadri ak anzalnahu fi laylatin mubaraka laylatul qadr fem la tudd fi muy laylatun mubaraka moy guddigi yàlla di jële ay décision di dogal bii ñu ni mooy guddi goo xam ni dafa barkeel loolu moo tax ñu ni la bu la ci dara échappé bu la nawaafil yi échappé bu la ñaan yi échappé yonent bi nag salaa sallam ba ko sayyidatuna Aïcha radiyallahu anhu anha ni ko yaa lu may wax ci leylatul qadr mu ni ko allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa afu anna allahuma innaka afuwun xam nga afu mooy la afu gis nga gis nga ki la jéggal daa xool sa bàkkaar ba pare nii la jéggal naa la afu nag mooy gëmm naa xooluma ko je ferme les mu ni yàlla afu da yërëm sa jaam bi ba da ngay dumóoyi la muy def ci lu ñaaw tuhibbul afwa moo tax képp koo xam ni itam suñ la defee lu ñaaw nga gëmm ko danga koo bëgg kon nag faafu anni yal nag ma jéllaleel al afwu mooy jëllale loolu moo tax abu bakarin fazazi tagg ci yonent bi salaa sallam ni ko nabiyun bi wax yi laa yatasarrafu عفو عن الجاني وقد يتوقف يلين بإذن الله حينا ويعنف بشير نذير مؤسر متعطف له ديمة الهطلاء والعطن الرحب مني يوننتي ني بو خامني بوكو يالا واخول دارا ريك دوكو ديف واي كيكو توغ داكاي جيلالي واي نك امنا كو خامني داي تخاو كوريجي كو نده باج مو ياق مني بوكو يالا جوخاي ديغال mu souple waaye bu ko yàlla joxee ndigal tam mu mu dur waaye nee na su bokkeek nit ñi dara ñu ni ko nañ ko seddoo mu ne may naa leen sama wàll fasagini dënn boobu dënn doom aadama tuuti na ci kon yow dënnu gëléem nga moo tax mu wax sayyidat sayyidatuna Aïcha ni ko del wax allahuma innaka afuwun karimun تحب العفو فاعف عنا يالا نكو يالا ديفال بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كون ني جانغ توسل يوي ني سي مانا جانغ